bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى خير خديمه ذي الحبل المتين wa ala man iqtafa aathaarahum ila yawmi ddin bokk ji li wa rahmatullahi taala wa barakaatu gannaaw bi nu santee borom subhaanahu wa taala julli ci Mustafa sallallahu alayhi wa sallam tey jaajëfal ashaykhul xadim noo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel ci bis bu tedd bi ak weer wu tedd wi nga xam ne noo ngi ci cat li muy rajabul fard di balu ñëpp xaq di ko baal ñépp ñaan sun ba mu boole nu jéggal sun waxtaan tey dañ ko jëmale rek ci ndigal li nga xam ne Cheikh Mouhamadou ni li Muntaqa joxe na ko ci waajtaay màggalu Poroxaan gi wax na jox ndigal bépp murit bu ko man saa bu xëyee mu jàng matalabul fawzayni ñu gis rek lam lam lam ko nirooleel muy nekk jim nekk tata tata di kaaraange lu dëgër loo xam ne buur yu njëkk yaa njëkk yi daanañ ko am tata nag miir bu dëgër la daa doon miir bu gudd boo xam ne kenn du ko mën a jéggi waaye itam nekk itam bu dëgër boo xam ne kenn du ko mën a bët mooy nag tata yooyee buur ya daa def du dara ci tate sëñ Tuubaa ji di matal faw sëy ni moo tax mag ñi daa ko tudde làkkab Tuubaa ab làkk nag e, lu daa wër la moo xam ay taxas lay doon wala làkkam ngeer bi ñuy tuddee dóor dóor wala daal loo xam ne dafay wër nit ki ba nga xam ne lu la ca bitti tey luy lor du ko mën a bëtti fekko fekko fekko fekko ki ne ci biir ngir mën koo lor mag ñu noonu lañ ko tudde woon te buñ gisee itam ni ko sëriñ bi taalifee xeeti ñaan yim ñaan ci biir nga xam ne lépp lu dee si muslu muslu na ko ci ñaar dañuy gën a seetlu rek ñaar yim ci ñaan ci ay xéewal ak yi ngeeneel ci dëkk bi waaye booy xool lam ca muslu ci ci luy mën a lor moo gën a bari sax lam ca ñaan ci njariñ ci njariñ yuy ñëw nga xam ne boo tàmbalee ci tarjumaan ji ba ci biir xasida gi lépp bàyyiwul dara lu dee si musul musul na ko da gis ci njaal bi ci tarjumaan ji rek lam tàmbalee gannaaw lam jiital allahumma yaa waaxidu ya ahadu a'udhu bika min sharri saakini baldi wa waldi wa walad nga xam dafa njëkk a ci ayu ku dëkk ci dëkk bi yow sunu boom yi nga xam ne yaay kenn maa ngi lay musal nga musal ci ayu képp ku dëkk ci dëkk bi ak kay ayu yépp wépp waajur ak yépp doom xamul nga lu kenn génn ci koo gis benn muy waajur wala muy doom rek wala muy ñaar yépp sax tudd itam lenn ci ndax booba bi muy sanc Tuuba ab àll boo xam ne ay ndeg ment rek ñoo fi dëkk tax nag mu muslu ci xeeti ndégment yépp aqattul asada wal aswada wal xayata wal aqraba wa saariqa wa taariqa wal aaqida wal naafita wal aaina wa saahira wal insa wal jaanna anna wa an jamil muslimin bi alfi laa hawla wala quwwata illa billahi illa billahi al aliyyil azim xane musul na ci ayu gaynde ayu ñàngoor ayu jaan ayu jiit ayu sàcc ayu kuy dox guddi kuy rañaan ayu kuy fas ay fas di ca tafle ayu borom bët bu ay ayu ab njabar ayu nit ak ayu jinne mooy sunu doon yàlla na ci musal musal ci mboolem jullit yépp ci junni bi junnib laa hawla wala quwwata illa billahi aliyil azim junni junni xawaqa la nga xam ne boo xoolee ñaan googu day gis na dara géndu ca waaye ci biir xasida ga nag da koo gën a firndeel maanaam ñaan yi ñëwaat na ca ak yenn ñaan yoo xam ne yépp xeeti musulu la wax ne suma yàlla na nga def kiiraay suñ diggante ak jépp lor ta nga fegal nu yépp ay muy ak dee mbaa lu ko niru wajal xijaaban baynana wa bayna kulli adan wal takfi anna al xayna ci yërmande jeeg toroxlu gi ndax nit yàlla yi dañ daan toroxlu ñaan yax dafa ñaan yosun ba yàlla nag nu musal ci ayu mboolem bindeef yi waaye mboolem bindeef yi yàlla na nga leen musal ci sama waay ku ne xam ne amut ay moom lor sama lor yàlla na yàlla musal ci lor yi bindeef yépp te musal bindeefee ci sama lor moom saana fen bi la darari amul lor waaye day toroxlu wal tak fi ne ada jamil alamin ya rabbi amin ñaan sun borom musal ko ci ayu jamono ji ndax jamono ji nag ak ay wàcc ay wàccee xew jamono ji ak yeneen jamono ji dun moom nag moo xam ja ko jiitu la moo xam jay ñëw la xam ne ji ko jiit sax weesu nga ko waaye jamono ji ak ji jay ñëw ci kanam te musal itam ci jépp fitna wa na min charri hada alzamani wa charri gayrihi wa kulli fitani ñaan sun doon ak yàlla nag nu musa yàlla nag nu fegal ayu nasaraan yi ak yahud yi te fegal na ayu iblis ak képp kuy borom gu weddi ku ne xam na ne jamono yi mu fi nekk jamonoy koloñaar la français yi yilifoon Sénégal te doon ñoo xam ne seen yitt yépp mooy suufeel muy suufeel lislaam ak daaneel ko ak noggatu nit ñu ñuul ñi den leen fitnaal di leen lor ndax muy ñaan suñu borom mucc ci mboolem seenu ay yahud ak nasaraan waltaqina charra nasara walyahud wa charra iblisa wa kulli di juxuud أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد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 له إلا nga gisoon ak ñaan waxtu nekk day matale du bàyyi dara fa mën a ñaan te xam aw ñaaniin su ñaanee bàyyi dara du fa des lu bu dee lu ñuy muslu du des lu ñuy muslu dootu fa des su dee lu ñuy ñaanit lu ñuy xëcc lu ñuy xëcc dootu fa des moo ñaan sun bon ne ko yàlla nu musal ci ayu jinne ayu masiixu dajjaal ayu nit ku ñuul ayu nit ku weex moo xam ca ca penku la dëkk wala ca sow ak ayu lépp lu nekk ci kaw suuf si sépp ak asamaan moo xam lu nëbb la moo xam lu feeñ la wal jinni dajaali wa suudaani wa suudaani fi charqi wal maghribi wal bidaani wa chara fi ardi wa sama turran wa sama min zahin wa batinin iktadama ñaan sun ne ko yàlla na musi ci mbas ak bépp natt bu ko asamaan jëm ci bindeef yi ak lépp luy wëndeelu ci ci ci suuf si ak seen diggante asamaan diggante asamaan suuf kon ak li seen diggante wa kun mu'itana min al waba'i wa kulli nazilin min as-sama'i wa kulli ma yaduuru fi l ardi wa ma yakun ya rabba sama dugaan nag ci ñaan goo xam ne mooy da nga gis na ca dara na wax sunu aar sama kaaraange te defal ma sange su sangewu mooy kiiraay lu dëgër loo xam ne dara du ko mën a bët dara du ko mën a du ko mën a jéggi sange soo xam ne dafay nekk sange su sangewu sange mooy sange su dëgër ci lan nga may ci nga la ma ngay aar mooy mooy mooy ayu lépp li borom sell la mooy rab yi nga xam ne dañuy jëfandikoo nit ak ayu lépp loo xam ne dafay am ay dafay am ngeexoom yi nga xam ne ci ci ci ci ci ci ci tànk lañuy ñuy fàdde man a man a wex lu mel ni tene ak yu deme ni ñoom caali xoob ak yu deme ni ñoom te fegal ma itam ayu képp koy dox ak ndëggu ayu képp kuy war te yor ngànnaay ayu képp kuy ay lépp luy naaw yori laaf ay képp ku doog toog tey wax lool nag ci jamono ji ñay toog cee seen gannaaw ordinateur di xasee ka saaga lu ñaaw di ko jëme ci ñoo xam ne duñ seen moroom eh, ñi leen gën fuuf ci fan yëpp <clears throat> day tabbi ci lola ak ayu ku tëdd ak ayu taxaw ñett ñi rek mën a am ku toog mbaa ku tëdd mbaa ku taxaw nee na yàlla musal ci ayu ñoo ñëpp ak ayu képp kuy ëf ci ay pas-pas mooy an nafaathaati fi la uqad ak ayu njabar ak képp kuy borom weddi <clears throat> fahmi ximaaya li yakuna xisnan xasin an kulli di naabin wa gufrin kulla xiin wal takfi ni yaatal baqaay wal xidam adalla si macha ilaya bil qadam wa charra man yarkabu daa silaaxi wa charra ma yatiru da janaahi wa charra ma yajlisu bil kalaami wa charri sidatin wa di qiyaami wa charra ma yanfusu fi l unquudi wa charri saahirin wa di juhuudi yemu ca ne maa maa maa maa maa maa ngi ci sa barke lay tënk ci sa màgg lay tënk yow sama borom gaynde ak jaan ak jiit ak ñangur ak kuy ëf ci pas di ko fas ak ab sàcc ak bët bu ay njabar kuy dox guddi nit jinne nga musal ma ci maag mboolem jullit yépp bi ka àqattu yaa ilaahil asada wa xayyatan wa aqraban wa aswada wa aaqidan wa naafitan wa saariqa wa aainan wa saaxiran wa taariqa wa liisa wal jinnamaan anni waan jami jami jami xam xaddaas moom fi ma alan mooy bu jul xam ne su buy ñaan da ca boole julli yëpp jami xam xad aslamo mooy mboolem ku ku ku jullit rek bi alfi alfi lafdi la hawla wala quwwata illa billahi dil ula ne ko yàlla nag musal ci tam ci ayu ku dëkk ci dëkk bi ak ayu yëpp waajur ak ayu képp kuy doom te fegal ma ayu gémmiñ ayu bët ak ayu képp ku jëlee jël aw ay jëmi ko ci man ku ma dëgmal di indaale aw te musal ma ci tooñu jépp aju tooñ musal ma ci ayu ku réer ayu borom xam-xam ayu ko noppi ayu koy wax ayu ku weddi yàlla ayu kuy dox guddi ayu ku ku ku bon ayu ko baax nga xam ne ko baax sax leer dana am ay ak ayu képp kuy not ak képp kuy songe ayu lépp luy naaw ak ayu lépp luy dox ayu képp ku géem ku kenn xamut ak ayu ko siiw ba ñëpp xam ko ayu ko iñaan ayu koy ñaawal ayu ko rëy ayu koy tooñ kon day mel ni bàyyiwul dara ci ñaan gi te boo ko toppee nag noonu la dem ba ci ba ci mujj mu ñaanal jullit yépp ñaanal taalibe kon nga xam ne kon boo xoolee lii liñ ci joxate la waaye lam ci indi ci lee xeeti muslu lu dee si muslu nga xam ne bàyyiwul dara dara dara dara ci lu dee si muslu kon loolu ñaan googu rek doy na sëkk kon kaaraange kon li suñ mun taxaa wax ne kon xasida gi kon kiiraay la boo xam ne maanaam sange la soxla da ngay da lay sange sanga sange wàll ña la wër maanaam tata la joo xam ne mi ko jàng aaraale ña la wër sa njaboot yi ñëpp ko ci na ca biir kon na ci mu murid yëpp farlu ni mu ko diglee saa boo jullee suba bala nga def dara wala ngay xëy di dem sa place na nga jàng ma loolu fas yéene guddul nga jàng ko nañ ko war a jàng loo ca rek nga ko ca rek lu ama am solo la ci doon jëm toon tata nekk itam aar kaaraange ba mag ñi daa ko tuddee làkkab Tuuba bu dee nag xutba bi imaam war a jàng tey tàmbali ci sant yàlla yàlla mi nga xam ne moo defal ngëneel ko ko soob wala moo lu ko soob ci xeeti weer yi ak bis yi te xamal nu itam ay xam-xam yi ngeen ngeneel ak xéewal yu yar yooyu lambo te ju léegi sëlmal ci ki nga xam mooy suñ sang si yenam sallallahu alayhi wasallam mi nga xam ne ak saxaabaam yi nga xam ne xameef na leen ci rafetal ak jokk salaat ak salaam goo xam ne da dañ dañ jokkaloo di wéy li fekk guddi yu baax yi ñi jokkaloo di wéy gannaaw loolu leen yéen nit ñi yàlla subhanahu wa sëmbatal na ci yenn ay xéewalam yu di xéewal aku ñaawante waaye itam wottee yenn waxtu yi ñaawteef yi mu di ko wottee di ko soppi jëf yu rafet ba noppi ful ko nag ak fulandi jagleel lenn ci weer yi ay mayi ngëneel yu màgg yu kawe ngir jullit bi ci nekk tey tey jëf mën a dolli ay jëfam ci lu jëm ci faratay ak naafila yi mu ne bokk na ca bokk na ca jamono yooya nag seen weer wii nga xam ne dara jaam ak yoolan lu màgg la fa yàlla subhanahu wa la muy weeru rajab sun boon ci ubbi bunti yërmande yi bàkkaar ci biir weer wi itam doonte rëy na ci nga ngëneelu sun boon mën naa nekk lu ñu sippi waaye jëf ci itam jëf ju baax it nag doonte néew na lu ñu yëkkati la ca kaw a kaw ci yërmande sunu borom subhanahu wa taala waaye njëggal itam ci biir weer wi lu tàllal la lu ñu may la ñi nga xam ne dañoo gàttañ lu ci seeni wërteef waaye ngërëm it nag ngërëmal yàlla luñ cay dog la ci ñi nga xam ne dañuy sàkkoo jéggalu yàlla ci biir weer wi di weeru rajab yonent bi sallallahu alayhi wax na ne man istaxfarallah wa saalahu tawbata fi shahri rajabin sabina marra bil ashi wa sabina marra bil xadaat in maata maa win wa bayna rajabin wa bayna rajabin al mustaqbil maata shahidan mardiyan anhu laa tamasuhu naar leen yoon saa son dafa wax ne képp koo xam mi ngi jéggalu yàlla ak di ko tuubal di ko sàkku njéggal ci juróom-ñaar fukki yoon ci suba gi ak ngoon gi ci weeru rajab astaxfirullah wa atubu ilayhi lu gàtt la astaxfirullah wa atubu ilayhi nga wax ko juróom-ñaar fukki yoon ci suba gu nekk ak ngoon gu nekk ci weeru rajab diggante rajab gi nga ko defee ak rajab ga cay toppaat boo faatu ci diggante bi shahid ngay doon ku yàlla gërëm ngay doon koo xam ne sawara du ko laal mukk lu gàttal te kon te bari njariñ yéen saa su ma ko wax mu yàlla na suñu boom boole te boole leen ci ñi nga xam ne dañuy lebal yàlla lebal gu rafet mu ne na ngeen toroxlu ndax yàlla kat ànd naag ñi ko ragal waaye ànd naag ñi nga xam ne itam ñoo rafetal inna laa ma alladina taqaw walladina hum muhsinun su dee xutba ñaar dafa sant yàlla mi nga xam ne moo tànnal ay bindeefam yonente bu tedd tuddee ko Muhammad méngale ko xéewale ko liwaa ul xamdi muy pare sol ba nga koy jox ëllëg bis penc ca tàngoor wa mu nekk ma maqaama mu tedd sallallahu alayhi wa sallam maa ngi julli ci mag di julli ci gaay mi nga xam ne ñooñoom ñi nga xam ne amee nañ tedd nga ci jage gi ñu ko jage ci bokk ak saxaabaam yi nga xam ne texee nañu ci topp giñ ko topp ak cofeel giñ ko sopp gannaaw loolu nag yéen jaami yàlla yi na ragal yàlla te nangoo waxi seen bu yonent te jublu nag e, xar xar kanamu nangu ci li nga xam ne moom la leen digal ci ay njekk lu leen di jural ay njekk te ngeen góor góorgóorlu di jëf te xam ne yàlla dana jëf ku jëf yàlla dana gis say jëf te ngeen rafetal ni yàlla rafetal jëme ci yéen te ngeen xam ne kat bis yi day gaaw nañu lool ci ni mu doxe te dee gaaw na lool ci nu muy dabe te nun nag noo ngi ci ay mébét rek yoo xam ne amulu amuluñ ko ab ab ab gàpp te digg yi day am na ci digg yu jege lool mu ne kon na ngeen gaawtu njëkkante yàlla ne sunu defal tawfiq bala leen a dig yooyu di bett bala seen bala leen seen dig di bet na ngeen farlu góorgóorlu ci soxla woo jëf yu baax yi bari lu ngeen di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na su ma defal tawfiq defal defal defal leen tawfiq ni mu ko defalee gaa yu baax ya fi jiitu woon ci ay jaamam yàlla noonu yàlla def te def leen ñu bokk ñi nga xam ne dañuy bàyyi seenu tànn ak seen namel waaye ko ci tànnug yàlla ko nammeelam te itam tey dog seen dund lépp ñu du ko jeexal ci topp yàlla mu ne ci lool nag ci ngeen mën a watte meññiitum mbaaxu yàlla ak ngërëmam te ngeen seetantal nag wax ji suma waxoon ci alxuraan ne képp ko jëf lu baax muy góor muy jigéen te yàlla lal ko daañ ko jox dund go neex fii ci àdduna te bu ëllëgee ñu fay ko la lu gën mu doon jëf yàlla na suñu boom jégal te jégaleen na dimbale bool defal tawfiq xiir nu ci ak njub te saxal nu ci def nu dëgg dëgg taalibe Sëriñ Tuubaa Sëriñ Tuubaa nag suñu taalibe si am nu ndax yàgg fi lool te wér lool suñu boom àggale ko mboolem ay yéenam barke Seexul Xadiim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa ashhadu an laa ilaaha illallaah ashhadu an laa ilaaha illallaah ashhadu anna muhammadan rasuulullaah ashhadu anna muhammadan rasuulullaah ashhadu an laa الحمد لله الذي عم العوالم جودا وكرما وإحسانا وجعل لفيضان رحمته أوقاتا وأزمانا نسأله أن يوصل منا الصلاة والسلام ويوالي المبرة والإكرام وعلى سيدنا محمد الذي فتح الله لأمته من سعادتهم ما أراد وشمل بنعمته بنعمة شريعته الحاضرة منه والباد وعلى آله الأعيان wa saxaabatihi al-aclaam salaatan kaamilatan tattasilu mattasalat al-layaali wal ayyaam amma bacdu fa yaa ayyuha nnaas inna shahrakum haadaa rajabal fard al-haraam قد ذهب هلهاه ولم نحسن فيه عبادة الله فأكثروا فيما بقي منه من نوافل الخيرات والأعمال الصالحات والبر والطاعات وإن فيه يوما عظمه الله على سائر أيامه كلها فيستحب تعظيمه شكرا لله والتعرض فيه لنفحات رحمة الله قال تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ومن صامه ابتغاء وجه الله ومرضاته عوض الله بصيامه أجرا كثيرا ittahiduu yaa cibaadallah wacmaluu camala man yaclamu annahu raajiun ilayhi yujaaza ala alsagiiri walkabiir subhaanahu annahu laa ilaaha illaa huwa alcaliyu alkabiir الحمد لله الذي وسعنا برحمته الشاملة وبلغنا بمنه الأزمنة المباركة الفاضلة نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين أما بعد فيا أيها الناس بالأمس كنا في فسحة من شهر الله رجب واليوم قد كاد يغيب عنا هلاله ويهتجب وأخذ في الانصراف وقد حان وقد آن رحيله وبرز الانتقال والفراق دليله وقد ظفر فيه بالبغية الصابرون ونال فيه الخيبة والحرمان المقصرون وودعوه وداع الحبيب وزودوه من الخير بأوفر حظ ونصيب وتأهبوا للقاء شعبان شهر التوبة من العصيان والطهارة من الأدران والتكفير للذنوب والتنوير للقلوب والتسهيل للحساب والتأمين من العذاب والنجاة من النار والوسيلة إلى العزيز الغفار وفقنا الله لأعمال المقربين وغفر لنا ولكم ولجميع المسلمين يغفر الله لنا ولكم آمين allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salaati hayya ala alfalaahi qad qaamati salaatu allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah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 allah allahu akbar sami allah rabbana lakal hamd allah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 wujuuhu yawma'idhin naa'imatun li sa'yihaa raadiyah fii jannatin 'aaliyah laa tasma'u fiihaa laagiyah fiihaa 'aynun jaariyah fiihaa sururun marfuu'atun wa akwaabun mawduu'atun wa mamaariqu masfuufah wa zarabiyyu mabsuusah afalaa yanzuruuna ilaa al-ibili kayfa khuliqat wa ilaa as-samaa'i kayfa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 allahu akbar allahu akbar sami'a allahu liman hamidah rabbana lakal hamd allahu akbar asalaamaaleykum. asalaam.